Alla jee gannaaw ba ma la delloo nuyu wax naa ko léegi waxtaan wi tey euh, mbébétu nguurug Sénégal démb la ko biral ci ab conseil des ministres ne nag dinañ taxaw rek ci dabax ay centre commerciaux lépp rek ngir mën a moytu xëy na yenn jéye yi yow noo gisee euh, laaj bu njëkk mbébét boobu nga xamante ni nguur gi am na ko. auzu billaahi mina sheytaani rajiim ñu ngi nuyu ñu nuy seetaan ñëpp euh, di nuyu aussi staffu groupe TFM GFM. Euh, di tàmbalee lu décision bi nga xam ne président jël na ko mu jóge ci conseil des ministres parce que conseil des ministres moment bu solennel la ci doxalinu réew rawatina gouvernement ndax lu ñu fa xas ba jël rek lu sacré lay doon te lu ñu war a doxal lay doon warul am du ko téye waaye nag euh, bu fekkee ñu ngi koy dooru jël damaa ne yeex na. wala ndax daaw ñu jël ay décision te appliqué wuñ ko parce que depuis Abdou Diouf Wade Macky marché yàgg nañu lakk. ñuy wax modernisation marché mais en général sax du état moo koy def. te baat bi du tey baatu modernisation boobu. Ah, modernisation bi tur bi yàgg na. Mhm, modernisation des marchés waaw yàgg nañ ko wax. yàgg nañ ko wax mais en général sax du état moo koy def. Mhm. ay promoteur ñoo daan jël initiative foofu seen alal fekk barab bu existé ba eggal ñu dëg ñu diisoo waxtaan ak ña fay nekk tabax marché te sànq ñu ngi koy junj du doone da fi da ngay Euh, marché bi di ko tabaxaat nit ñi tuxu fële non non du da du demee noonu. dinañ dellusi ci wàllu woowu am solo nga waaye li nga junj tamit léegi am na solo. mooy maanaam bu njëkkoon promoteur a koy def. waaye du doon sax euh, liggéeyu état du neex sax liggéeyu euh, lu waral tey absence su promoteur yi ci wàllu woowu. bon absence promoteur yi ñàkkul ñu ci am ay difficulté mhm. parce que man fekke naa pose première pierre marché Thiaroye mhm. ku mel ne El bi xam nga cinéma la woon. donc promoteur moo jóg def ci xaalisam mu nekk marché fekke naa euh, Petersen ak marché bañ fa tàmbali te eggul Euh, donc lu bëree bëri bëri promoteur mooy waxtaan ak ak euh, ña fay jaay déggoo ci stratégie kooku def ci xaalisam banque koy lebal ma wala épargne la fu mu jëlee xaalis moo xam ne après ñi dañ koy fay. nguur gi dina ko faral di gunge. waaw nguur gi gunge gi muy gunge surtout sax ci fa affaire autorisation lay doon mais li décision bi président jël ak gouvernement bi peut dañu gis dañ ci nar doxal beneen doxalin bu bu bees parce que lakk bi mu amee Kaolack. bi fi ministre demee wax na ne danañuy tabax ay marché moderne bi la ko amee njaaree même chose te yàggul affaire pàkk lamba bi aussi maa ngi marché wu ñu fa nekk parce que dem naa fa barki dem ànd ak président xool yi la fa nekk mais jéggi na dayoo jéggi na dayoo ci kaw ak commerçant yi certes am nañ ci responsabilité duñ ko daw il faut assumer mais euh, protection direction de la protection civile ban njëriñ la am ci réew mi parce que ñoom buñ mënul dem di prévenir Euh, vraiment amatul ta direction la boo xam ne nii ci nguur gi la aju dañ leen di fay. Mm-hmm. Euh, fàttaliku naa aussi Sénélec am na benn kuréel gu mu mettre en place ñu koy wax Prokelec ñoom dañ daan jël initiative dem ci marché yi di xool ndax installation yi tegu na ci yoon wala ndéet ou bien ñu xaar ñu woo leen. te loolu booy seet amatul mais euh, soxna si. Mm-hmm. gis nga marché bu dugg ci dakaar mm-hmm. ci leen Sandaga HLM boo duggee bi ci biir boo téenee ci kaw sa yaram daw. waxuma la lënd yi waxuma la salté bi waxuma la yàgg gi mais fii nii ni ñu jaxasoo. Mhm. kii am compteur kii am compteur kii am compteur en général yow sax booy ñaan da ngay ki jéggi ki jéggi dem ca kële parce que sa mbokk la wala yu demee noonu bu ko def fii day jaxasoo. Mm-hmm. d' une manière te loolu mais état na jël responsabilité am. su ah. amee rek dafay faral di métti. Euh, en général dañ naan gaz la ko fa doon togg wala ñu ne ku doon attaaya la wala ku doon tux wala court circuit en tout cas li ci ëpp ci yooyu la jéey yi di jóge ci marché yi mais lu mu mënti doon rek. Mm-hmm. responsabilité partagée la moment bi ma lay wax nii moment bi ma lay wax nii tey suba sax laa mu jël contact ak ñoom du ma tudd benn groupe d' assurance boo xam ne nii assurance incendie marché je je sais que c'est un risque mais loolu mooy suñ produit bu ñu nit mën a tegal suñ kanam ñu fekk ko ci te loolu su amoon certes assurance risque la mais ki assuré aussi day assuré ngir ëllëg bu jëyee amee mais ala kulli alin waruñu seetaan ni at mu nekk nangami marché lakk ñu croiser les bras naan jël nañ décision maa ngi xaar nag décision bi nguur gi jël. lu ci ñu appliqué ko waaw lu liggéey boobu tamit euh, xëy na am na yoo xamante ni moo moo jiitu. préalable waaye balaa ñu yegsi si mm-hmm. préalable mm-hmm. boobu euh, yaakaar naa ne liggéey la aussi boo xamante ni nii wax nga ko sànq euh, nit ñi dañu war a diisoo ci wàllu woowu mu mel ni tey concertation laaj na ko ci diggante nguur gi. Mm-hmm. waaye tamit ñi nga xamante ni vraiment ñoom ñooy acteurs yi. am na ñaari cas mm. dama lay jox exemple marché Tilène actuellement maire bi am na projet ak ñoom pour réaliser. Mhm. ñun yëgaloon nañ ñu ko am na réunion sax boo xam ne fekk nañ ko ci mais bu concertation amul projet bi am. parce que doo maire la collectivité collectivité locale nga yore nga jiite ko am nga ci responsabilité parce que wala nga ne recette rek moo la intéressé mais acteurs yi il faut nga déggoog ñoom ci sax liggéeyuñu yi doo sax defar sa maquette ñëw imposer leen ko non ñoom dañu war a bokk ci concept conception bi. Mhm. ci architecte bu ñu mën di woo sax na jóge bitim réew na fi nekk conception bi nañu ci war a woo. parce que ñoo fay nekk après. mais ñoo fay nekk après. Mhm. mu am beneen problème mooy problème barab bi lu mu tuuti tuuti ndax day nekk titre foncier pour ëllëg nga mën koo déposer sa banque sax ñu la bala xaalis oui ou non wala dañu naan marché bi. collectivité locale moo ko moom yow daanaka dañ laa luy rek wala weeru nekk joxal sa nangam loo xam ne day dugg ci kees gi y a tout am na beneen beneen góom bu fi nekk aussi bu metti mhm. muy Sandaga xoola bi mu lakkee ba léegi nii ndax responsabilité commerçant yi la ndax responsabilité mairie bi la ndax responsabilité état bi la

moom mooy préalable yi. xam nga préalable mooy mi ne. tile lu a def. waaw lu jiitu lu jiitu sax tabax yi mooy waxtaan. Mhm. su ma jëlee exemple toujours Tilène parce que Tilène nekk naa fa amoon naa fa boutique bon jigéen naa fa léegi créé sama société mais nekkoon naa foofu donc xam naa lu fa dew maanaam maman bi ma la xam mooy euh, caro euh, kii euh, boutique yi am caro noir blanc noir blanc te sës ci école bi noonu El Hadj Ahmed Diène mhm. ak gouverneur Yandé Touré à l'époque ak ñun. ñoo liggéey loolu responsable commerçant yi mel ne El Hadj Talla Diop ñoo liggéey loolu mais préalable bi xam la doo ñëw rek raser marché bi dama koy tabaxaat diggante boobu ñi fi nekkoon fu ñu nekk fan la leen seen client yi fekk ñu jaay parce que jaay nit ñi moom lu ñu xëy jigéen yow boo xëy il faut nga dem marché jëndi la ngay jëndi ki la koy jaay dana ko wuti teg ko ba bala ngay ñëw boo ñëw fekk ko fa mais fan la koy defee bu fekkee jëlee nañ fa nit ñi donc mi meilleure stratégie mooy marché bi bu fekkee ne cent mètres carrés la dama ñu exemple vingt cinq mètres carrés le par exemple la ñu ko toj. di liggéey ñoo ñu am fu ñu nekk provisoirement du yàgg suñu pare rek ñu installé waat parce que risque bi sax mooy génn nit ñi ñu pare nga dugal ñeneen. loolu commerçant yi duñ ko nangu.

ndax ku ne xam ne ni centre commercial euh, dafay am cantine mm-hmm. donc mu nekk loo xamante ni daal modernisation la ñu wax mais est-ce que bu boobaa euh, mm-hmm. maanaam xam naa yemale dana du du du yomb de ndax xëy na ñi nga xamante ne seen loxo jotewul seen gannaaw ci yenn ci commerçant yi est-ce que dinañ am possibilité pour am accès foofu tey jii bu yëfi sotti waaw bien sûr boo jógee ci cantinu barak euh, wala seng ñu tabax ko en dur nga dellusiwaat njëgg nu man def yokku mais pour sécurité bi yokk na donc ñi doole yi aussi musul tolloo doole yi mu musul tolloo d'ailleurs sax li ñu def mooy bu ñu tabax centre commercial. dañu def rez def étage am ñu jëlaat rez ci étage peut-être tailleur yéeg parce que tailleur laaj du obligation moom foo nekk dañu dafa fekk mhm. mais bu amee ay bureau assurance wala ay banques yi aussi ñu nekk ci kaw ci suuf ñi jaay ay jën yooyu nekk parce que en nga yéeg ci kaw di fekk jënd jën ak yàpp ci kaw dafay jafe jaare ko jënd ko suuf moo gën a yomb surtout bu dee ay ceeb yooyu donc doole yi ma mënu tolloo mhm. waaye en par nangami at bu mu egg cinq ans par exemple buñ paree moom donc euh, donc loolu yëpp ci concertation yi moo koy waral mais duñ la bëri rek imposé commerçant yi luñ attanu te duñ ko nangu moo indi coow souvent ci marché yi collectivité locale moo am puissance boobu ndax depuis décentralisation euh, yoon da leen may doole. Mhm. mais nañu jiital concertation waaye doone bëri fële indi say homme d'affaires financier wala say architecte wala sa maquette d'ailleurs tu as projet maquette la ñëw imposé daal na ñëw ni lii la liggéey mais commerçant duñ duñ ko nangu. ñu lay jaajëfal bu baax Alla Dieng mais fàttali ni yow yaay secrétaire permanent mm-hmm. bu INACOI yeesal xibaar yi ñu